li aju ci Kaolack nag election locale ku nekk am nga droit seet ku neex nga faral am na ñu ñëwoon ci man di wax ak man am na ay coloré am na yëpp mais nag bi ma déggee sëriñ bi wax démb wax dëgg yàlla waxam ji mu junju wane fi mu féete ba pare man lépp bëgg bàyyi laa ko teg lépp bëgg askan wi laa ko teg ma xam ne tam moom Ndiaye Rahma nit la koo xam ne doomi sëñ Maamoun la fekkee naa ak moom ay jotaay yu bëri yaakaar naa ci ci moom lu baax gis naa tamit mu engagé wu président mac Sall mi nga xam ne bëgg naa koo gën a jàppale euh, taan naa ko jàppale mais dama ko bëgg gën a yokk su ko defee ngir askan wi ngir taalibe bàyyi ngir intérêt jullit ñi parce que ànd boo xam ne tamit moyoo ca yàlla dañ nga cee bëgg lu baax mu jox la nopp nga mën koo waxal askan wi liñ nekkee nga mën koo waxal sa gis-gis ci réew mi nga mën sa jëriñu jëriñ jaamu yàlla yi ah loolu yaakaar naa lu baax la ba tax na moom laa bëgg a jàppale comme moom la samp foofu na te sëriñ bi joxoñ na te man tam am naa sama choix yu bopp ma xool gis ne moom Ndiaye doy na war nañ koo mën a jàppale ci kaw digal ko ci kaw xelal ko ci kaw jàppale ko ci kaw bàyyiloo ko xel taalibe bàyyi ak taalibe yeneen kër diine yi bàyyiloo ko xel tamit askanu Sénégal ak peuple Kaolack pour mu taxaw ci feeg ñi ñu ngi ànd ci dëgg incha allah ñu ngi fas yéene soutenir ko jàppale ko.